yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàng mi ak juróom ñaar yàlla musal na waa Israël ca bësub jéggi ba nanu bamtu nettali yi weesu benn naka la yàlla defe li mu dige woon yàlla dige na ne benn bés kenn ci askanu awa dina daan seytaane yàlla digg na ibrahima réew sët yu bare ak kenn ci ay sëtam kuy daan seytaane benn bés yàlla fàttewul kóllëre gi mu fasoon ak Ibrahima ak askanam. ñaar naka la ñuy xamee ne yàlla bëggul bàkkaar. ndaxte yàlla dafay atte képp ku bàkkaar. lépp lu waay def am na peyam. bi seytaane jéemee def boppam ni yàlla yàlla dàq na ko mu jóge asamaan bi aadama ak awa lekkee garab gi ñu tere yàlla génne na leen toolu àjjana bi kayin reyee abel yàlla moolu na ko bi nit ñi ci jamonoy noyin bañee tuub seeni bàkkaar ñoom ñépp dee nañu ci bi nit ñi dajaloo ngir tabax taaxu babel ngir màggal seen bopp yàlla wàccee na làkk yu bare ba déggootuñu noonu ñu tas mbind mu sell mi nee na ci gàddaay gi saar fukk ak ñaar aaya fukk ak ñaar ak aaya fukk ak guddi googu man aji sax ji dinaa jaar ci biir réewu misra te dinaa fàdd taawi réewu misra yépp dale ko ñi ba ci mala yi te it dinaa mbugal yàllay misra yépp deret ji nekk ci kër yi ngeen dëkk nag dina doon xamikaay ngir yéen bu ma gisee deret ji dinaa leen teggi ba menn musiba du leen laal bu may fàdd réew misra bu leen fàtt ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla musal na waa israel ca bésub jégg nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla musalee waa Israyil ca bésub jégg ba waa Misra amoon nañu ay yàlla yu bare yu mel ni jant bi weer wi dexu niil ak yeneen ak yeneen yaakaaroon nañu ne nag ak jasik ay rab yu sell lañu waa Misra dañu daan màggal yëfi yàlla sàkk te wàcc yàlla aji sax ji mi sàkk lépp waa misra bañoon nañu topp yàlla aji dëgg gi musa ak aarona dem ci firawna ngir wax ko ne yàlla bëgg na mu bàyyi waa israyil aarona sànni yetam ci suuf mu soppaliku jaan ngir won firawna doole yàlla noonu ay luxuskatu firawna sànni seeni yet ci suuf ñoom itam ñu soppaliku jaan waaye jaanu aarona wan na seeni jaan firaw na dëgër bopp firaw na nangul woon suufeel boppam ci kanamu yàllay musa ak waa israyil firaw na bëggoon na yilif waa réewam te du ko bokk ak kenn noonu yàlla tàmbali wàcce fukki musiba ci kaw réewu misra ndox mépp doon deret boole ci dexu niil gi ñu doon jaamu yàlla teg ca wàcce yeneen musiba yu bare ci kaw réewu misra musiba bu jàll Firawna na ne dina bàyyi waa Israël ñu dem waaye gannaaw gi xolam bañaat musiba yi di wàcc benn benn musiba weñ yu bare ay teen yu bare ay mbot ak ay njéeréer yàlla wàccee am musiba mu rey seen jur gépp yàlla wàccee jàngoroy taab ci waa misra yi yàlla taw ay donji galas ñu yàq meññeef yi mu wàcce itam ak lëndëm ci kaw réew misra waaye firawna bañ a bàyyi israel ñu dem gannaaw gi yàlla wax musa genn guddi am malaaka dina wër réewu misra te njaboot gu nekk dina fa rey taaw ba ci mala yi itam dina rey doom ja jëkk juddu ca yu góor ya yàlla wax musa mu wax boroom kër gu nekk ci waa Israyil mu rey am xar mbaa béy te nit ñi war nañu lekk yàpp bépp ci guddi gi su njaboot gi yaawul ñaari kër mën nañu bokk rey menn mala te mala ma taaw la war a doon ci ndeyam mala mi warul am benn sikk muy gaañu-gaañu léget mbaa damm-damm te bés bi waa Israyil war nañu rey mala yi gannaaw loolu ku nekk war na jël ci deretu mala mi mu rey wis ko ci ñaari wetu buntu këram ak ci kaw bunt bi gannaaw loolu war nañu lakk yàpp wi lekk ko ak ñax mu wex ak mburu mu amul lawiir yàlla wax ne ci guddi gi dina wër ci réewu misra su gisee deret ci buntu kër du bay malakam dee gi rey taawu kër gi deret ji ci buntu kër gi mooy wane ne rey nañu mala ngir mu wutu taawu kër gi kër gu am deret ci bunt bi mucc nga ci ateb yàlla yàlla wax leen ñuy màggal at mu nekk ba su jéggi ba mu doon pàttaliku guddi googu yàlla wër biir réewu misra waa israyil yépp topp yàlla wax noonu kenn ci seen njaboot mba seenug jur deewul yàlla du fate digeem bi mu gisee deret ci bunt kër waa Israël dafa romb kër yi waaye guddi googu dee wàcc ci kër waa Misra yépp boole ci kër Firawna Firawna daldi xam ne daanu na mu ne Musaa mu ànd ak waa Israël ñu génn Misra te dem màggal seen yàlla seytaane mënul woon fànq li yàlla bëggoon a def fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax yàlla wàccee musiba yooyu ci kaw waa misra ndaxte waa misra topp ñu woon yàlla te firawna bàyyiwul waay israyil ñu dem ñaar kan moo jox luxuskat yi doole ngir ñu roy kéemaan yi aarona ak musa def seytaane ñett lim leen yenn ci musiba yi wàccoon ci misra ndox mi soppiku deret musiba mbott ya gunóor ya weñ ya njéeréer ya tawum glaas ma taab ya deewum jur ga lëndëm ga ak deew taaw ya ñeent ban musiba moo tax Firawna bàyyi wa Israyil ñu dem deew taaw ya juróom lu tax yàlla reyul taawu waa Israyil ya ndaxte topp nañu li yàlla wax kër gu nekk rey na am xar xar yooyu ñoo wuutu taaw yi juróom benn xar mu amul sikk naka lay mel kuyum xar lay doon jëkk juddu ci ndeyam bañ a am gaañu gaañu damm-damm mbaa léget juróom ñaar lan moo naroon a xew ci këru waa Israël bu reyul xar te wis deret bi ci bunt bi taawu kër gee naroon a dee ak mala ya jëkk juddu ca seen ndey juróom-ñett lan la yàlla sant waa Israël ñu màggal ko at mu nekk. bésu jéggi ba. juróom-ñeent lan la waa Israël waroon a lekk bu ñuy màggal bésu jéggi ba. waroon nañu rey am xar wala ab béy bu amul benn sikk waroon nañu lakk yàpp wi lekk ko ak ñax mu weex ak mburu mu amul lëwiir fukk ndax seetaane mënoon na daan yàlla ci misira déedéet fukk benn ndax dañuy saraxe ay mala tey jii lu tax yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla kenn la amul moroom waa misra ñu ngi doon màggal ay yàlla yu bare waaye seeni yàlla ak seeni luxuskat mënuñu woon taxaw ci kanamu jenn yàlla ji dëgg yàlla borom doole la yàlla def na kéemaan yu bare yàlla bëggul bàkkaar yàlla atte na waa misira ndaxte doonuñu ko woon topp gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla won na waa Israël yoonu mucc muy xari jéggi ba yàlla lu mu dige def ko yàlla génne na waa Israël misra ngir mën a def li mu digoon aadama ibrahima isaaxa ak yanqooba beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla rëcculoo waa Israël ca géej gu xonq ga